wala nga ne Doudou bu jox yor saan saan xale noonu Ami Collé bu neexee nga ne Doudou Sané Ami Collé neexee nga ne noonu dinaa ne kii mooy bàyyi ko jox yor la ngañ seen waxoon dama koy ñëwaat lamb jël naa si lu ne nit rek bi dafa ngi noonu Diofior kii moo bàyyi ko arrondissement Fimela kii moo bàyyi ko Diofior kii moo bàyyi ko Ndagane kii moo bàyyi ko Diofior kii moo bàyyi ko Joal ndeysaan dinaa leen doomu doomu ndeyu ba léegi nii yéen kan at Babou Sarr ndaamal daaru kokoy kan kokoy duudu yoo <laughs> kokoy duudu yoo <laughs> alem bir na Diofior a xangog oxa cata o lembam ne oxey xada fi bu Diofior saan nena leen kii dem na drapeau chef de l'État na folum ne waaw loolu moom nangu naa xam ko le langan seen waxoon booy ba nit rek laa jëlu si lamb xa def c'est que dégg nga ko sa génération Khadafi dafee ngi noonu ndeysaan doomu ndoy Babou Sarr ndaamal daaroo ngi noonu Khadafi ziar na delloo ziar sant Khadafi li nga naan ñëw nga ñëw gis nga teg bi la indi dañoo pare pare nañu xam naa ko bu baax est nga ko bul tamit mais xamuma waaw loolu nga xam bul ay taalibe Sëriñ Fallou lañ loolu jaaxal ñu lépp lépp la ñu waaj pare nañu carrément. mën nañoo xaar lu mel sa diggante ak Boy ko raw. lu ko raw nañ ko xaar. waa di ziare waa Diofior bu baax a baax fu mu. Hmm. waa léegi moom daa gëj taxaw ci média duma ko si contre duma ko sikk mais maa ngi koy ñaanal jàmm rek be jour si incha allah mu dëggal boppam quoi. làmb ji mun a neex loolu kese la. yaakaar bii damay mam direekuwuma de damay daw. da damay daw. yow mam bëgg a nax. gaynde man xale laa. xam na mbul. man bàyyiwuma dara. làmb làmb la mais moom bu taxawee baale ñu dem ah? ba biir. lu gaaw combat lu gaaw. moom nu muy waxe comme daa dëggal boppam euh, yal nañu yàlla suturaal combat la ñu jëm yal yàlla suturaal comme dëggal na boppam combat bi day neex ah. waaw. xale foog Diofior waaw gidma ren gidma arrondissement Fimela gidma région Fatick fop euh, gidma képp xo benna a duusane rek duusane xe letnama ɓaye lawume ñananam digante es combat es mi fu maître Ablaye Wade Mbaye ndamin maafin taf taf jumgaɗuɗine combane te geno xa ñoxor eh? te geno xa ñoxor rek dusane xa taga mais ba muy làq séeréer daa mel daa tudd kooku dama kaa xam te xaw ma Baye man la Diouf Sané lu ma soxla dama koy xam <laughs> ah non bokkuñu maa ma bokkuñu boo boo xoolee Diouf Sané xool Auguste xam nga ne Diouf Sané ak Auguste bokkuñu loolu dëgg la yow mii sax bu ma ko laajoon nga wax ko kan moo ëpp fit ci làmb ji man ngay wax <laughs> yaa jëf lam la wax da nga xadafi bu joof yoor a ngi noonu saan doom nday ëbbalee ngi noonu doom nday Babou Sarr ndamal daaru ndeysaan wala ce ce yoon daanonge moom Ablaye ce yoon daanonge moom Ablaye bësëm ba drapeau chef